onze billahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmani rahim onze billah bisimillah in wala yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen yi nga xamante ni yéenay teewlu seen émission boo am solo bi nga xamante ni moom lañ leen dëgtal lépp itam jëm ci li nga xamante ni rek mooy fajuk aada fajuk cosaan waaye wàllu ñaan ak yu ni mel émission bi nag wax dëgg yàlla askan wee ko sàkku bëggal ko seen bopp muy faj sa jàngoro tey ñu dellu siwaat ci beneen numéro boo xamante ni nii seet beneen kilifa goo xamante ni wax dëgg yàlla gisoon ngeen ko ci jamono yi waaye yéene jamu am nañ leen ko waxee woon ci émission bi weesu bëgg waxtaane lépp loo xamante ni rek jëm na ci soxlay doomu aadama yi ndax dañuy faral ci biir waxtaan di waxtaan bu ma ko waxee mu ni ma sëriñ ma ne Mbàkke mu ni ma lépp loo xamante ni tàmbalee na ci weewu tànk doomu aadama ba ci karaw yu boppam am na lu ma ci suñu borom jagleel loolee nag deesu ko weddi ndax defe naa ne émission yi weesu am na lu ngeen ci jotoon na dégg tey tamit am na fu ñu ci nar a dugg ngir mu gën a leer tam ci boppi doomi aadama yi nga xamante ni wax dëgg yàlla am na ñuy yitte am na ñuy soxla am na ñuy bëgg-bëgg waaye ba tey jii ñuy wax daanaka lu saafara seeni soxla loolu dafay jafe te dangay gis léeg nit ne la dem naa ci téeméeri sëriñ ba léegi mënu ma am li ma bëgg moo tax ñu seetsiwaat ko moom kan Cheikh Mamadou mustafa Dieye di kenn ci ñun di kenn koo xamante ni tam li muy def yërmande moo ci jiitu waaye dëgg moo ci jiitu waaye itam alxuraanul karim mooy li ci mooy base ba macha allah moom lañ fas yéene si dalal tey jii waat ak moom itam lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu woobee muy émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro ndax doomu aadama buy dox ci kaw suuf am nga jàngoro te nam ko waxee woon keroog ñaari jàngoro jàngoroy poos ak jàngoroy yaram kon Serigne Moustapha macha allah ñu ngi lay ziare bu baax a baax jërëjëf. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa nastaghfiruhu a'uuzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'aati a'maalina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يدل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Cheikh Talla ñi ngi ziaraat ñëpp di ziar waa àdduna bi ak fu waay mën a ne di leen bàyyi xel te di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawféex defal leen ndam rawatina ñi tëdd ci hôpital yi ak ñi suuf féete kaw yàlla na yàlla yërëm leen te xare leen aljanna waaye di wax ni comme ni koy waxee rek sang bi taala aajoy jaam yi ñoonu fi tax a toog mhm. di wax ni saa su nekk mbokkim waa réew mi nag ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen di ziar bu wér sax bu baax a baax a baax te di leen wax ni yàlla na yàlla faj seeni aajo ba kenn ku ne la la tax a jóg ba nga nekk fa nga war a ne yàlla na lu ko yàlla yombalal ba nga dellu si waat sa njaboot ci jàmm ak salaam Cheikh Talla. jërëjëf wax dëgg yàlla. Euh, nuyoo bi am na solo sell na itam mucc na ayib yal yàlla sama borom boole ñu yoolu siyaar ba ak yoonu ñaan bépp itam gannaaw téléspectateurs yi dañuy namm di wax sa waxtaan duma def lu dul rek ñu xuus ci waxtaan bi sëriñ Moustapha tey ma am foo xam ne fa laa bëgg a indi ñu dugg ci ndax gannaaw émission yi weesu ba fi ñu ko mujjee woon fa ko tënkoon ci wàllu waxtaan ci wàllu tawatu yaram defe naa ca lañ nekkoon. tey ma bëgg ñu waxtaanee tuuti tawat joo xam ne lëmbe ne jamono muy tawatu poos waaye itam ma bëgg ñu waxtaanee li ma ci gën a yitteel dañuy faral di baaxu di dégg sëriñ bi ci nit ñi wala yenn xeetu sëriñ yi ñuy wax ci jinne ci jinne ci jinne te sëñ Moustapha ma jàpp ni jinne ni ko suñu borom waxee doon loo xamante ni lu ñuy gis la àll yi nu ma bëggoon sëñ Moustapha nga wax ñu lan mooy jinne ba noppi ñu xuus ci biir waxtaan. macha allah laaj nga lu ama am solo nee naa ba fan la jinne nekk lañu war a laaj waaye jinne am na kenn waratu ko laaj ndax yàlla moo njëkk ni jinne am na ndax nee naa la saaru jinne yi am na nu laaj ban saar la ni na xula uhiya ilayya anawstama nafarul minal jinni nga dégg ba tàyyi minal jinnati wanaas yàlla wax ko ay yoon seextaa la ñu ne jinne yi lenn lañu wuute ñoom seen karaw yi day sax fu ne mm-hmm. ñun sunu karaw yi am fu muy sax ci bopp ak feneen fudul foofa mm-hmm. sunu différence lool la mm-hmm. Cheikh Talla waxambaane jinne dana am ñaari téeméeri at ak juróom-ñaar fukk deux cent soixante-dix ans jinne ji toll ci diggu dooleem ñun ak ñoom nag mënoonu tàqalikoo te ñu ngi sunu biir am ay tur am ay askan am jinne yoo xam ni danoo mel noo xam ni sax looy xalaat mën nañ koy def am jinne yoo xam ni nag ay jullit piir lañu am julli am jinne yoo xam ni ay tuubeen lañu waaye jinne am na <laughs> am na jinne yoo xam ni ay doomi aadamaa leen ni tuubal réew mii boo may laaj fu jinne yi ne ma wax la ko waaw monument de la renaissance ay jinne kese la <laughs> waaw waaye gaa yàlla yit am na ñu fay teew ci bisub alxamis màggati jinne diggante tëngéej tubaab jalaaw yenn jam ñaajo la ëpp <laughs> màggati jinne <laughs> lu doy waar la nag moo tax yi sëriñ bi sànq yu bare yoo xam ni ci yenn heure yi boo koy dox bul gis jigéen joo gis mu rafet baa mu njool ca kaw rek nga ni ko ee eh, bu nee la ee eh, da xam ni du loo gis nga ni ko ee eh. yooyu nag mooy yi nga xam ni nit ñi sax ñu ngi koy dégg waaye xamuñu ko waaye sëriñ taala mm-hmm. jinne rek am dafa am ay askan waaw jinne ak rawxaan nag danoo bokkul te léeg-léeg dañ leen di jaawale te bokkunu déedéet jinne à part rawxaan à part mhm. jinne nag seex taala ab melokaanam lépp mën na mel ni doomi aadama waaye différence bi boo xoolee tànk yi rek xam ni wuute yoo noonu tànk yi du changé weyi weyi du changé mukk ci àdduna weyi du mas a changé léegi nag fa la secret ba ne jinne bu jàkkaarloog yow am na loo yëg te pourtant doomu aadama moo gën a foor jinne waaye sunu sàggante moo tax ba jinne yi dinu waaye am na lu nu doon demee ñun dunu moroomi jinne yi déedéet waaw waaw léegi nag sëriñ bi am na yoon yu bare am na yu bëri yu ci xew lu mel ni yoonu mbuur bari na jinne torop moo tax soog du fa jóg <laughs> soog du fa jóg jam ñaajo la fa standard ci ay jinne kenn xamul nu mu toll autoroute à péage yu bare ñoo nga fa waaye yi gën a soxorit fa la ne ndax béréb ba seen béréb la ñoo ko moom moo tax à du dañ ay yàqu-yàqu di fa bare ban ko liggéeyee yàggul lafay de kenn xamul nu mu toll te pourtant à péage pour yoon wu gaaw ak mucc moo ko taxoon jub mm-hmm. waaye ay bagages a fa. su kon moom loolu bokk na ci xanaa oto yi fay tàkk yu ni mel. coro jinne dafa am faru jinne am. Mm-hmm. jabari jinne mag ñi dañ ko daan am. Mm-hmm. <laughs> ku ni euh, jinne am naag amul laajoo yonent yàlla Suleymaan <laughs> jinne rek am Cheikh Talla léegi nag jinne yi ñenn ñi moo leen ni dofloo ñenn ñi moo leen ni tàqalikoo seeni sago ñenn ñi ñoo leen ni xabtalloo moo tax boroomi rab boo ko xoolee rek xam ni mi ngi ki ay rab waaw moo tax yooyu nag seex bi bu nu ko doon xam daanu mën a dimbali sunu bopp. Mhm. daanu xam fu ñuy teg sunu tànk daanu mën a gën a dimbaloo xeetu jinné booy xalaat nag am na. màggatum jinné am na yoo xam ne Seex Taal seen saay-saay foo ko takk paase na ko. Mhm. jinne léeg-léeg mën na jóge ba Guinée Conakry ba Bissau ñëw si sa biir kër. ndax yaa sécuriser wul sa kër yaa ci deful sécurité mhm. moo tax. il faut ne xam luy jinne te wallaahi seex bi buñ ko xamoon daanu mucc ndax ñoo ëpp doole fopp ney jinne lu ne ci kanamam xam na ko lu mu weesu fàtte na ko waaw lépp xam na ko bu dee milliardaire am na ci ñoom mhm. <laughs> bu dee xam-xam am na ci ñoom bu dee ñu jàngal xuraan am na ci ñoom waaye ay shayatin nit bare na ci ñoom waaye ba léegi bokkunu melokaan wi nu yàlla binde <laughs> moo tax yenn waxtu yi bul bul xalaat gis nit muy dox rekk ndax seeni soppiku bare na ci seeni bët ak seeni tànk waaye bu nu jéegoo rekk da leen di xam seextaa la soo bañee ku manti doon pour mu jommal la bu ñëwee ci yow di la wutloo ñaan bu dee du doomu aadama soo nee ko gàllaxndikool du nangu gàllaxndiku <laughs> waaw xam-xam la du masa gàllaxndiku kay te bu gallaxndikoo dana xam ni du baax le loolu lu mu la santoo ni danaan bàyyi naa ko baa mu xëy rek dem yoonam àllu si bi xutaan bi li fi ne ci ay jinni kenn xamul nu mu moo tax na gaañi xam bu baax <laughs> moo tax jinne sëriñ bi xeet boo ci xalaat am na ci am na jinne yoo xam ni nag derit rek moom la ñuy kiiwee waaw amit sëriñ su leen ni signé ak loolu ñoom contrat yàlla nañ ci yàlla musal <laughs> derit ji nag ñaar lay doon daan la laaj bu bàyyi ma waaye man nan la laaj bu dul bàyyi ma te loolu am solo la bu ma kon bu jëmmi doomu aadama bu jëmmi doomu aadama waaw. moo tax nit toog ba ci yàgg rek ni taraas daanu ci ci lu gàtt rek mu commencé am lu nàcc ci moom fekk te yoo am na lu waral loolu il faut nit ñi di xam loolu te jinne yi danoo sikk danoo sob te lu leen neex def te ñu ngi niy dégg bu baax nag hmm. te nag li gën a garaaw mooy li tax mënuñu mucc ci ñoom lu dul di muslu hmm. dañu ëppee trois fois xeet wii ma la wax nag bu nu jàppoon ci loxo ci yenn waxtu yi darajey rasulillahi nanu foyante fenn rekk <laughs> naa la wan ñii ma lay wax askan wu nekk nag ci màggat yeeg mag ñeeg ndaw ñi te lii ma lay wax wallahi boroom xam-xam yi xam nañu lu wér màggatum jinne bo boor yii ma la wax la ëppee ni ngi noonu <laughs> sëñ Moustapha mm-hmm. jinne mhm. ak rab ndax damay dégg itam ñuy wax faru rab faru rab mhm. coro rab mhm. dama jàpp ni jinne moo am ak rawxaan waaye rab lu mu ci bokk lu ko ci indi waaw Seex Talla jinne la alxuraan indi rab am turu wolof la <laughs> jinney rab rek alxuraan moom jinne la indi rab olof mooy wax rab boo demee alxuraan doo ci fekk rab waaye jinne mooy rab <laughs> loolu la indi moom olof moo indi am turam ni rab waaye alxuraan jinne la wax waaw loolu mooy mbir mi différence ñaar la rawxaan ak rab dafa wuute yoo jinne day ñëw ni la nangam nga bëgg nii lay deme rawxaan nag ay ay ay ay fànnin la ay point la ay chiffre la yoo xam ni yaay bëgg mu ñëw mu ñëw ci te jinne yi sëriñ bi nee naa la ay askan lanu mm-hmm. waaw ay askan lanu moo tax ku seen faram seen askan amoon rekk même bu say waajur génnee àdduna mm-hmm. daan la ko bàyyee moo tax ñu bari ñi ngi faju ci sëriñ fekkte yoo seeni bagaasi maam ñoo leen topp mm-hmm. te xamunu nan la seen maam daan mm, nàndale yooyu te yoon la woon it xam ko te nee naa la ba tàyyi bagage bi ñëw ci yow te xamoo lu mu bagaas bagage soo xamul bagaas dëgg doo ko mën a yor moo tax ñu bari léegi ñi ngi dof ñu bari léegi ñi ngi sàggan mm-hmm. ñu bari léegi ay gàllankoor ñuy ñëw ci ñoom te fekkete yoo ay yàqu-yàqu la moo tax sëriñ bi mm-hmm. ku naan jinneeg rab bokkul rekk mi ngi wax ci lu mu kéewul jinne mooy rab alxuraan moo indi jinne olof naan rab <laughs> waaye benn la mhm. benn la jinneeg raw xaana am différence jërëjëf sëñ Talla leeral boobu am na solo ndax mm-hmm. dafa am ñoo xamante ni wax dëgg yàlla itam dañ daf leen xaw a mm-hmm. jaaxal mm-hmm. ndax da ngay ñëw ci sëriñ bi mun la da am faru rab bi mun da nga am coro rab te alxuraan gannaaw base bi nga xamante ni defe naa ne mooy sifaay gi alxuraan wallaay dëgg la kon alxuraan la mu bind ñun loolu la war a mën a jàpp dëgg la waaye mooy comme ni nga ko waxee euh, sama sang bu baax ba dégg naa sëñ Fallou mhm. daa mas a toog ci mag ñi dañoo mas a ñëw da mhm. ko bàkkee dëkk bi de bi daa yi daa bëri lool mhm. mu ne waa ji ñu naa mu ne jarta sonn lu ci waay gëm jàppal dana la jëriñ waaye waa ji lu ci waay gëmut ba du la du waay dara dëgg la lu wér kon ñu xam ne cosaan la moo tax ñu koy woowee rab dëgg la jinne la jinne la tur yi daal moo ute waaye lenn képp la ñu daal waaw kay waaye sëñ Moussa Ba ki xam ne sàggan na wala nattu solo ko mhm. mhm. ku bàyyiwul di weer sa tobéy ci biir duus doo tàqalikook jàngoroy rab ni ko gën a xam-xam ko ci jinne ndax jinne ba gën am palaas yu doy yu mel noonu palaas yu am sobe yi mhm. te mën na ñëw di fóon tobéy ji nga soloon bu dee jigéen nga dadul orma may jaar ci wenn wi waaye ki ma dégg xam na fa may waxe su ko fóonee mën nga fi jóge sa régal dootul jaar yoon baa ëbba boo am mu yàqu te ñun am na nu habitude bu nu fóotee rek weer ci biir duus ñaareel bi ci tegu di fanaanal say tobay ci diggu kër baaxut gënut taaj ndox xëy di ci raxasaat say bool gënut te naa la wax tey benn affaire képp ku rab jàpp nga koy yóbbu ci sëriñ ndegam mi ngi reedu gaaw a wér moom mi mi rab bi jàpp. moom mi rab bi jàpp dof boo gis muy reedu gaaw a wér. <laughs> sëñ bi waaw léegi nag dafa am yoo xam ni bu nu ko xamoon mën nañu dimmali ba du am ndox mu tàng boo koy tuur ci duus bu la jënne nuus dootu la ba. ndox mu tàng baaxut. ko ci suuf it ndax toujours am nga ay àndaali yu lay topp. Mm-hmm. waxuma sax jinne ki rawxaan am nay àndaali yu lay topp te topp gin lay topp. lu am na looy def da leen ni lakk te jinne loo ko tooñ faf kay fayu dox deux di deux heures ci bëccëg ci vendredi ngelaw loo gis na ko moytu bu la daaneelee doo gaaw a wér bu la duggee doo gaaw a wér ndax wali yàlla yi bëggunuy tardi jumaa te bu ne xas dem jumaa xamatunu lu taxaw seen kanam hmm. moo tax nit dafa war a xam wan waxtu lay dox waaye ndegam bëgg nu mucc ñaar dana ci moytu sëriñ bi jinne dangay sollu sol gàtt mu lay riisu doo ko yëg bu demee ba fóon lenn ci yow danga naan dara daanu ni naan de léegi la doon toog dafee daanu te jigéen ju rafet la koy def nag jigéen ju toog ba si yàgg di waxtu fu ne nu yóbbu ko fa mu tëw a wér fekk jinne ko def <laughs> yii mooy mbir yi nag jinne bu la bëggee lottal dëgg sa cër lay damm du ko damm nag téppit day xool li gën a baax ci yow mu ne ko lëkkët lox loxal ko ba doo dox sa cër yépp di bañ moo tax mani la dafa am yoo xam ni dañu koy caaxaane rekk mm. waaye bu nu ko xamoon dëgg dañu koy moytu <laughs> jinne dafa am yu muy bañ yu bare am na rab yoo xam ni comme jinne ñenn ñi dégg rab yoo xam ni bëggunu nga leen ni rayal boo ko defee rek dootoo ko defet maanaam tuur deret ku am rab di tuur deret bu bàqatooyee doo am jàmm nawet <laughs> doo am jàmm te lu doy waar la. loolu loolu loolu na tool. waaw nit a ngi faju dem ci sëriñ feebaram di gën a yokku fekk li ko jàpp rab la te am na lu muy bañ te ñu ngi di ko def mm-hmm. kiy faju ci rab rab jàpp fu mu toll ni koy solol lu xonq du gaaw wér du <laughs> gaaw wér rab bi mën nay daw di dem mm-hmm. waaye bu nee daraas rek bu demee këram mu ñëwaat ci moom <laughs> yooyu moo nu sëriñ bi te yoon la nu war ko xam ngir nu man jàll ci leneen àdduna mhm. baa ngi toj doomi aadama yaa ngi sànku ñenn ñaa ngi kii ak it ñiy werd yenn turu yàlla yi mhm. sëriñ bi li muy yàqit kenn xamul nu mu toll waaw am na ismu bu naan ismul jalaal dafa tàng mhm. muy ahamun saxakun xalaxun hahasun am na ñu koy werd te fekkitu amuñu ci ndigalu wird ka ndax mbir moomu balaa mooy faj say ajo day naan juróom-ñaar fukki bakkan ci ab maala mhm. mooy da koy reyal mhm. juróom fukki waaw juróom-ñaar fukki bakkan mhm. waa yow mi nga xam ni doo xëy génnee saraxu fanweeri dërëm <laughs> yaa ngi sànq sa bopp te damay gis ni koy jaay ci mbedd moo tax dof yi léegi dafa bare ndax ismu boobu sëriñ bi fu mu la mënul yéegee amut waaye fu mu la mënul wàccee it amut kon nanu leeral jaami yàlla yi pour nu bañ sànku xam-xam nag am na alxuraan lépp ngi ci sëriñ billaahi ku jinne jàpp am na saari alxuraan nga jàngal ko ko bu jógul gëmal ni doonatul jinne yaasin walxuraanil hakiim lu doy waar la waaw ñetti yaasin yu bokkul yaasin bi nu bind tomb ko maas ko yaasin bi nu bind tomb ko kenn du ko maas ak yaasin bi nu bind tomb nu ko maasunu ko feebar bu dul feebaru dee mën na ko faj am na lu muy àndal nag feebar bu dul feebaru dee laa la mhm. mën na ko faj yaasin ñi ngi koy dégg waaye xamuñu ko cent pour cent <laughs> te yaasinu jigéen ne am na pourtant yaasin boo xam ni boo ko dee def. Mhm. doo ñàkk dara waaw. Ah waaw sëñ boobu doo ñàkk dara da am jinne yi di am bagaas yi ne doo ñàkk dara yaasinu jinne am na faatiha yi jinne am na. <laughs> waaw. moo tax il faut nit ñi di xam. Mhm. ak di comprendre ni leen ni leeral baanu bañ di leen leeral. Mhm. moo gën ni jàppalu leerul ba mu leen ni sànk. jinne yi mën nañ leen noot ba ni nem ndegam doomu aadama la yàlla ni moo moo ma gën a lu ma mën a bind te boo ko bëggee noot noot ko rawatina jinne moo tax Seex Taala sàgganu yii ma la wax nag moo waral jigéen mën na toog du ma sa am ba kër jigéen sëy na ba bàyyi jinneem yàqal ko première sëyam mu séyaat mu yàqal ko ko mu sëyaat mu yàqal ko ko te ñàkk bañ a xam a koy waral te wallaahi sëñ bi. am na benn patu dàll la boo xam ni dangay ngay gis léeg ci làmba yi gars yi di ko yor. waaw ato ak a yéeme. mooy baa nu jël ko rek naan ko nii. dëddi mhm. xool nii. mooy patu dàll bi am. bën bën boobu <laughs> ak a doy waar sëriñ bi. moom luy saafaraam. naa la xamal benn mbir. Mhm. nit loo bëgg a xam ci moom. Mhm. da koy xamee nu doy waar. loo xam ni. loo ciy xalaat am na ci te yàlla sëriñ bi amul lu mu bind ci kaw suuf mu doon hasard amut billaahi ku ne aajoom mën na faju ku ne ay wéeram mën na baax ku ne mën na sant yàlla te benn yàqu-yàqu du am seextaala alxuraan indi na lépp nee na soo bëggee am alal inna haza la risquna ma lahu min nafadin nee na soo bëggee yéeg ci kaw ñëpp di la dégg wa rafahnaahu makkaanan xaliyan nee na soo newee ci ay xat-xat lu ne man la ci fekk nee na sayajal allahu ba'da husri soo tawatee mu ni la demal jëlal la wa anzalna juróom-ñaar laxat jaakum juróom-ñaar fàllaxi juróom-ñaar ayatul kursi juróom-ñaar nee na am na noo naan kun lu mu fa fekk da koy dégager mu dem léegi ñun suñu problème lan la alxuraan lépp ngi ci billaahi sëriñ bi ñun soxlawuñu sax ki ay affaire di dox nanu fekk koo xam ni dañuy tekk taxaw ba ay mbiram doxul ba mu ne ci bëgg mu dox rek mu tëw a dox fa nga bëgg yegg mu yegg lu tox ndox di am courant di am te ni ñu wërsëg mu am wax dëgg <laughs> loolu rek moo ci am nag seex bi moo tax li wér te ma la koy wax mooy jaam yi daal lu ci waay mën a am ci aajo. yaa xam jàngoro laa xam lu mën ti doon. Cheikh Talla saafara saa ngi fii. macha allah jërëjëf Cheikh Moustapha leeral boobu am na solo ci diggante jinne ak rab ndax dañu mhm. bëgg tam nit ñi mu leer ci seen bopp. Mhm. ndax da ngay dañ ciy dégg version bu ci ne. Mhm. waaye defe naa ni am na ci loo xam ne. ki ko amul wala xamu ko wala gësoo ko. mënu cee wax lu sori. loolu bokkoon na ci li tax ñu dugal question bi laaj ko. ngir mën a génnewaat doomu aadama yi bu baax a waaye sëñ Moustapha. émission wàllu jinne yeeg rab mhm, mhm. dañuy faral di dégg naan mhm. maanaam ni ma ko mën a misaale diw dafa am rab est-ce que rab mënees na koo taqaleeg doomu aadama bi wala déet ndax damay faral di dégg ñu naan ci yenn sëriñ naan dama lay dàqal rab bi dama damaa jàpp ni rab yi moom dañ ko war a neexal ba mu ànd ak borom ci kii mu ne ma bëggoon nag nga gindi foofu tam ndax nit ñi su ko defee bu ñu dematee ci sëriñ si danañ xam ñan ñoo yor wax li wér ak ñi waaw Seex Taala ñaar moo am ci rab rab ñoom ak doomu aadama yi dëkk rab bi dala war a may jàmm bu la ko naree xañ yàlla wax na la moye ba ngay jaar ba mu mën la jox jàmm ku naan la damay faat rab def na lu mu xamul ndax rab bi jaam la yàlla ni jinne ak doomi aadama wàccewu ma leen fi mu dul mu jaamu ma kon boo ko faatee yàgg sunu boroom la mm-hmm. sëriñ bi mhm. rab bi danga koy laaj ni ko lan la bëgg mhm. te li mu bëgg day feeñ ci ki mu dugg mhm. da ngay dégg doomu aadama rab jàpp ko mu ni saraxeel leen ma soow waxul de dañ ko wax loo dañ koy waxloo yóbbu leen ma am palaas tel waxul dañ koy waxloo sëriñ bi ku ci nekk laa la wax man nga nekk ak rab ndax doomu aadama li gën a néew ci moom fukki rab ak ñaar ci moom fukk moo tax ku naan rab yi <laughs> danoo néew dafa xamul rekk waaw doomu aadamaay mer boo ñëwee laaj ko mu ni la xamuma lu ma merloo fekkte yoo du moom mm. leneen la doomu aadama yi raxul dara léegi nag ni ñuy def ba am jàmm mooy ku ne ak sa tegtalu sarax Cheikh Talla ku ne nag am nga tegtalu sarax boo xam ni boo ko génnewee da nga am jàmm danga am salaam danga dem fi nga bëgg a dem waaye dàq rab boo dàqee ba dàq kilo doon aar caaf dugal la te rab léeg mu génnee la ci yu doy waar waaye dala war a may jàmm am na ñoo xam ne ñoo moom seen rab waaye am na ñoo xam ne seeni rabaleen moom moo waral ñiy toog di waxtu ñiy toog seen xol di tànk ñiy xol doomu aadama rek ah, ko bañ ak it ñi nga xam ni da jug ba bëgg a dem mu ni la boo demee palaas tel diw nee na nu aay na de waaye ay boo fa demee bu boo dëgëree bopp ba dem mu ni la ah yi mu lay jox baaxul de boo ko utiliser mu danga koy topp <laughs> moo tax rab dafa doy waar rabay toog ba quatre di du matin yàlla ni la jugal pour nga dem ci armée li fekk de moo fa doom jàmm ah, parce que kii la jàppale mhm. bu baax nopp yi rek dëkk ma sam foo mën a toll nay daanu rab sax nu jël rekk am téléphone bi teg ci nopp bi dara jëy rasulillahi dàng lay def maa ngi ciy faj ay doomi aadamay ay doomi aadama ah am na am na dañuy bañ di wax ay tur waaye béréb bi nii ne am na fa mhm. gis nanu ku yuuxu di tëb di dal ci Sacré kër gi. nanu jël rekk nanu jël lii rek teg ko ci sëriñ bi. kaay ma wax la benn affaire rab am na noom lay jàppe kaamilu alxuraan am na noo koy ubbee boo nee nekk bàpp ci kaw bopp bi. ndaw si nemm lay def ak ku mënti doon ci àdduna xam-xam am na. xam-xam am na. jërëjëf sëñ Moustapha. Mm-hmm. xanaa nag fi mu ne wax dëgg yàlla téléspectateur lii moom mm-hmm. defe naa ni leer moom gënu koo leer. Mm-hmm. jinne ak rab daal xam naa ne foofu lañ koy tënkagu. lay ndeysaan la ñëwee woon tey. lay ndeysaan ana tey looy looy wax askan wi. ak tey kàddu gu mujj gii ngay wax tam rawatina ci biir émission bu am solo bi nga xam ne mooy. faj sa jàngoro. waaw Cheikh Tall li ma leen di wax rek mooy doktoor du masa toog ku nekk war na toog di noppalu ba mu des am doktoor te ñun ay doktoor lañu faj doomi aadama yi ci seeni aajo moonu fi tax a toog faj sa jàngoro du dara jàngoro joo mën a am ci kàttanu yàlla daanu ko saytu tegal la ko fu wér te it bu nu yàlla boole insha allahu rabbi ni ni nga ko bëggee danga ko ame nee naa la alxuraan bàyyiwul dara. Mm-hmm. lii la mais li la jaaxal sa bopp. Mm-hmm. ak lu mënti doon jëlal sa téléphone baa nga jéegoog sa tànk ci kàttanu yàlla sunu borom ni nga ko bëggee da nga ci am lu raw sa njotto ci mbaaxug sunu borom incha allah rabbi. nee na la boo sorewul dikkal ci moom. boo solee itam nee na jëlal téléphone mu ñu dëpp ko ci nopp ka mu jàpp mu tari ca lam cay tari incha allahu rabbi ci kattanu suñu borom di nga fa daal di jaare am tawféex émission bi moo doon bi nga xamante ne moom lañ leen jagleeloon doon ci waxtaan ci wàllu rawxaan wàllu rab akub jinne ci biir émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro fii ci Géejawaay di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi ñuy seetaan waaye di jaajëfalaat bu baax a baax suñu caméraman yi nga xamante ni ku ci mel ni Mansour ku ci mel ni Mouhamadou Lamine borom ñaan yu nangu yi canta ngërëm ñeen na leen dig daje beneen émission incha allah ci kàttanu suñu borom bi subhaana rabbika rabbil